décision yi lan lan lan la lan lañ leen mujjee wax loo xamante ni si loolu ngeen téye pour xaaral. suñu toll daal si lu ñu téyeegum nee ñu mois bi duñ ko génn te fayu ñu. octobre octobre mois de octobre bi nee ñu duñ ko génn. d'accord te fayu ñu xaalis bi mais fay boobu. Mhm. mooy ndàmpaay bi loolu dafa am leneen lu si topp muy li ñu war a teg suñu pension yi war ko see yokk. Mhm. loolu tamit noo bëgg ñu boole lépp comprendre nga. Mhm. joxandoo ñu ko bëgguñu ñu jox ñu parti bi toogaat duñu xaarloo duñu xaarloo. d'accord noo bëgg problème yi daal commission ad hoc bi comme mhm. président Macky Sall moo ko santaane mhm. noo bëgg yëpp sottee si loxoom balaa mu fay jógee si kàttanu yàlla d'accord changé nañ ki nga xamante ne mooy ministre des forces armées mhm. euh, léegi Omar la euh, est-ce que yaakaaroo ne dina am un peu chamboulement waaw ah, Omar Youm moom euh, monsieur le ministre ñoo ngi koy di ko du ko dalal jàmm si ministre des forces xamuñu ko nag bu baax mais am nañu yaakaar si moom nii situation bi dina dina dina changé man moom personnellement man sama bopp laa xam man Sidiki Kaba ministre Sidiki Kaba dama ko mere. Hmm. xam nga dama mere ko. waaw imagine toi da ngay ñëw ministère forces armées. rapidement. ministère forces armées nga ñëw fekk fa. waa Tamba ñëpp ñëw dajaloo ay fecckat ay waykat rek lay lay recevoir suba ba ngoon jot loolu maas maas man maas teg sama bët man mooy ministre de l'intérieur xool. soo ba ngoon jot mu nekk ministre forces armées yow nga nekk invalide militaire soxla ko war kaa gisoo doo ko gis pour nga gis ko problème la muy dégg problème problème invalide boobu ba tey ministre Sidiki Kaba benn yoon lañu mës a recevoir li si des yëpp li si des yëpp euh, directeur cabinet moom moo nii moom moo ni sa femme muy colonel muy euh, euh, colonel mhm. alif jot a xew yëpp mars bi passé nii imagine toi li li xew digg digg Ndakaaru moom waroon na yëkkati téléphone wooñu donc yow am nga espoir euh, par la suite wala li nga xamante ne moom mooy. ah am nañu espoir si si si si si ku bees ki xëy na su ñëwee. lu ñëwati si moom lu jëm si wàllu invalide yi. d'accord mën na bañ a yéex. d'accord.